Serigne Moustapha ne. dafa am fan yi dafa mbokk moo xamante ni. ci réew mi la nekk. ndax dafay liggéey ak borom réew mi. ne bëgguma tudd turam. waaye bu ma ko waxee ñëpp dinañ xam kan la. dafa wax fan yi ni. Alaaji Malik ak xam-xam ba. tey ci tey ku nu war a delloo siwaat tegaat yoon bindam ci wax ak waxin wu ñàkkin teggin te loolu ak tooñ la rawatina koo xamante ni dafa nekk ci wetu boroom réew yore làmmiñam fu ko neex mu tàllal ko fa ci ñàkk kersa ak réew ak lu bon te loolu ñu ngi koy bay bayal bërki dem wax na ko ci sa majesté le roi Mohammed VI ba ñu ngi wax sax naan est-ce que ñooñu du ñu def plainte jëmale ko ci moom te loolu fii réew mi toll jarul ubbi de seydil xaaji malik dafa waxoon ni bu ñu lakkoon kutubu shariati bu ñu lakkoon kutubu shariati ma xëy danaa ko taalifaat baaxe ko julliti ndax lépp a ngi ci dënn bi moom yelloo na baat bi ilmi ma'i xaysu ma yamamtu yatbauni qalbi وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه أو كنت في السوق كان العلم فيه كوكو lu mel noonu yelloon na ci moom bu amee koo xamante nag dafa daas làmmiñam te jëmale ko wul lu dul ñu baax ñi ci réew mi war ngeen cee wax ndax boroom réew mi fii orma rek la fi am ndax ñu nangu dogalu yàlla ci moom la waaye njaboot gi ci wetam ñu bàyyi leen ñu daas seeni làmmiñ ku leen neex jëmale ko ci nitu yàlla yi jaaduwul jërëjëf waaye sëñ Moustapha gis nga ñooñu li leen di tontu mooy gàmmu Tiwaawoon ñëw am ni mu daan amee te mënuñu si dara loolu mooy tontu bi ah. mbax ni yàlla dugale si xolu jullit yi Alaaji Malik ah. di tarbiyu bi mu tarbiyee yàlla liggéeyal yàlla ba yàlla liggéey loolu def ko ci xolu xale

سيد حاج مالك ديك بابا بابكر وحنيك الله الله اكبر جد الله خالقنا سبحان من زين الاخلاق والسيرة نيال رك كمان جل خل مرافت دخلوا على جمالك متجك بمجب دكتي يونيتي بي تجك تجك برافت دوم تجك يونيتي samaam sëñ Babacar nee na yàlla rek a ko mën te dem ak si Alaaji Maalik